Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu euh, Fatou maa ngi maa ngi nuyu képp kuy déglul euh, Rewmi FM. Mm. yow yaay directeur exécutif euh, Amnesty International Sénégal ñoom mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey tàmbali waxtaan bi ak accident bu metti bi am ca Louga barki démb tax lu jege fanweeri nit ñàkk seen bakkan ñu bari di laaj ana mesure fi état jëloon ñenn jàpp ne mesure yooyu doxaluñ ko moo tax li am am ki nga xam ne mooy sàmm ak ak yelleef ak Euh, doomu aadama euh, ban jàngat la ci am. waa jàngat bu ñu am mooy état dafa dellu gannaaw parce que mesures yooyu matuwaay yi bi ñu ko jëlee après accident bi amoon six kilo yooyu ñëpp ko rafetlu woon. parce que tiis bi bëri na accident bi bëri na euh, ñi ñàkk seen bakkan dañu bëri moo taxoon ñëpp àndoon ci mesures yooyu waaye ni ñu ko xamee rek bi ñu jëlee mesures yooyu transporteurs yi nest pas dañoo yëkk seen kaddu n'est-ce pas bañ mesures yi tax na ba état nest pas non seulement euh, euh, dafa différé application bi parce que loolu la loolu la ministre bi dafa ne nañu différé application yi pour may leen ñu préparé wu transport ci préparé bala ñu bala ñu koy dëgëral kon loolu mun nañu wax ne ñàkk appliqué mesures yooyu moo tax tey li nga am ne moo xew dëmb Louga xew te vraiment ñu koy nara naxarlu di di di masawu di jaale euh, mbokk ñi nga xam ne dañoo dañoo faatu ñi nga xam ne dañoo dañ dañ dañoo am ay gaañu gaañu ñu ñaan yàlla ñu ñu ñu ñu yàlla wéral leen nu mu gën a gaawee. Hmm. mais encore une fois am na beneen facteur boo xam ne bugguma ñu koy fàtte ci mbirum transport mooy condition liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur du transport démb rek n'est-ce pas euh, conducteurs yi euh, euh, bis ci biir Dakar def nañu grève. waaye képp koo waxtaan rek ci chauffeur yi lu mu lay wax mooy seen condition liggéey dafa métti dafa métti parce que ñu bëri ci ñoom mais amuñu contrat ñi bëri ci ñoom amuñu sécurité sociale soo feebaree mais mais mais mais fan yi ngay tëdd. Mm. mais doo am benn revenu. eh ba pare salaire de misère lañ leen di fay eh amuñu amuñu am duñu duñu noppalu. du ñu noppalu dañuy daw di liggéey gannaaw versement eh, soo xoolee ci biir Ndakaaru ay Ndiaga Ndiaye ay car rapide ak ay aftu di uniquement pour njëkkante egg ci ay arrêt pour mun a yëpp clients yi parce que simplement am na versement boo xam ne war nañu ko def bés bu nekk hmm. je crois que loolu problème bu rëy la dañ ko a seeta état daf ko def eh, na ci facteurs yi nga xam ne moom ko xam ne du noppaloo mu ngi def ci gànnaaw versement nest pas kooku dina toll foo xam ne dootul mun a concentré wu ci liggéeyam. Mm. parce que day sonn nit su sonnee rek n'est-ce pas concentration dafay daal di dafay daal di dem. kon mm. loolu facteur la bande foog ñu ko jël en charge ci euh, waxtaan bi nga xam ne moom la état ak transporteur yi di am pour mun a sécuriser message de transport routier. Mm. ñu réglementé ko. kuy dem Casamance wala kuy dem Fuuta n'est-ce pas euh, war war mën a dem ñaari yoon ci semaine bi. Hmm. soo demee ñaari yoon ci semaine bi na nga toog benn chauffeur dem waaye yow benn nit rek n'est-ce pas ak sa adjoint ngeen bëgg dem euh, pratiquement juróomi yoon yoon ci semaine bi dem Fuuta ñëw Dakar je crois que loolu. nit attanu ko loolu mooy andi généralement ce genre accident la tamit. am na ay mesures yu état jëloon lu ci mel ni euh, surcharge bi ñu tere ko waaye itam daw guddi gi ak sax vitesse bu bari bi loola yëpp ñu jàpp ne mi ngi daje woon ci accident bi kon état la mu waroon def defu ko est ce que ci situation bu ni mel ña loru wala seeni mbokk euh, mën nañoo topp nguur. waaw xam nga xam nga bis boobu warul mun ba waru warul mun jóge Podor <laughs> n'est-ce pas euh, Podor xam nga Matam ñëw ba Louga euh, am accident te rombul n'est-ce pas contrôle policier wala contrôle gendarmerie c'est sûr que bis boobu nest pa romb na ay policier romb na ay gendarme n'est-ce pas te li nga xam ne mooy surcharge bi war nañu ko mun a constater. kon su dee defuñu seen liggéey euh, n'est-ce pas ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci accident bi war nañu mën a wëlbatiku n'est-ce pas topp état euh, évidemment état dina la wax waaw euh, ñoom xamoon nañu bis dafa surchargé ñu dugg ci seen faute la non seen faute. faute ah, dëggoon naa sax benn avocat boo xam dafa jóge état di naan ñi nga xam ne ñoo nekkoon bata di joola ñoom ñooy ñoom ñoo responsable ci li nga xam ne moo moo leen daal je crois que loolu ay kaddu la te am nañu ñi nga xam ne ci biir état bi noonu la ñu xalaatee may wax ne rek waa waa mbokk yi su dee justice du Sénégal nanguwul n'est-ce pas euh, euh, euh, ndàmpaay ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci accident bi war nañu mën a saisir cour de justice la CEDEAO te suñ ko saisir rek mm. apporter ay preuve que état deful liggéeyam defoo war garam cour de la CEDEAO war na leen jox dëgg na teg état yi daan nest pas décider ay ndàmpaay yi nga xam ne moom la état Sénégal war leen a jox. Hmm. est-ce que Amnesty noppi na ngir jàppale ñenn ñi ci euh, procédure yooyu. waaw képp koo xam ne loolu nga ci accident bi rek te nga yaakaar ne état dafa am ay manquement yu muy def soo ñëwee sees ñu lañu fexe ba jox la benn avocat bi nga xam ne dina la jàppale ci ay procédure fii ci Sénégal ak procédure au niveau aussi la cour parce que il faut que ñu am habitude di topp état il faut que ñu am habitude di topp état bu ñu fa nekk di xalaat ne oui état kenn mën na ak moom dafa bëri doole non il faut que ñu am habitude di topp di topp état saa yu nga xam ne yaakaar nañu ne état dafa ñu lor. Hmm. loolu yoon moo ñu ko may il faut ñu koy def. waaw te maa ngi encouragé Sénégal yi vraiment que à chaque fois que état état état su leen état loree rek nañ jël seen responsabilité ñu porte dinañ ci am ndam ndax procédure yi am succès la. waaw boobu procédure ni ma la ko waxee rek su dee procédure bi fii ci Sénégal euh, attakat yi daf ñu lu ñu war a def boobaa suñu demee cour de justice la CEDEAO maanaam tribunal bi nga xam ne moom moo nekk ci CEDEAO foofu yaakaar naa ne su dee andi nañ ay preuve ne état daf leen lor évidemment cour bi dina dina leen jox dëgg. Hmm. ci kaw état loolu moom. Euh, lu leer la parce que ati attekat fa nekk ñooñu benn état mun leen influencer. Hmm. waaw loolu moo tax dañuy créer tribunal bi hmm. pour que su dee sa biir réew n'est-ce pas mënoo am maanaam justice nga mën a dem foofu dem joxante foofu. Hmm. alors beneen euh, musiba bu am ci réew mi mooy immigration clandestine mbëkk mi ba tey deltuwul ginnaaw fan yi néew yu baree bari euh, daal di ci euh, feeñ ñu bari kon ñàkk seen bakkan loola ban jàngat ngeen ci def Amnesty International. waaw loolu vraiment damay farlu pour di ci wax parce que ñun Amnesty liggéey nañu ci mbir mi lu ëpp juróomi at daanaka pendant lu ëpp juróomi at euh, mbirum mbëkk mi nekkoon naa suñu principal projet yi nga xam ne ñu ngi ko doon mettre en œuvre fii ci biir Sénégal ak euh, évidemment préfet yi nekk ci département yi ak. Euh, démembrement ministère de la jeunesse n'est-ce pas def nañu activité de sensibilisation yu bëri bëri bëri yoo xam ne day doon ànd ak ministère de la jeunesse ñu expliquer xale yi projet yi nga xam ne moom la état tëral pour que ñu mun a am e def nañu ko ci région yi nga xam ne fa la émigré yi di jógee migrants yi di jógee ndax am na zone de départ Eh, lu mel ni zone yi nga xam ne dañoo jege géej waaye ñi nga xam ñoom ñooy dem majorité bi dañu daan jóg ci région yi mel ni ay région euh, Sénégal oriental mm. Tamba Kédougou wala boog région yi nekk ci Casamance Sédhiou ak Kolda moo tax dañuy accentuer foofu suñu sensibilisation n'est-ce pas pour que xale yi xam ne jarul ñu jaay seen bakkan pour dem Europe surtout que risque yi pour que ñu rapatrier leen risque boobu dafa bëri. Eh, wala boog su ñu demee ba ay Maroc ay Tunisie jàpp leen dafay jaam eh, wala ñu refoulé leen ci désert ñu nekk fa loolu yëpp def ko jarul eh, il faut que évidemment ñu jéem fi toog. n'est-ce pas euh, bénéficier ci projet yi nga xam ne moom la état état état Sénégal tëral malheureusement euh, problème immigration euh, bëri na ay facteurs yu bëri waaye facteur bu gën a am solo mooy facteur économique il faut que xale yi euh, formation il faut que ñu jox xale yi tamit liggéey maanaam ñu xëy di liggéey n'est-ce pas mënu yor seen bopp mënu yor seen jamono loolu tank amul n'est-ce pas kenn du mën a téye xale yi fii eh, maa ngi def ministre de l'intérieur di wax waaw jël nañu matuwaay lañu topp maanaam euh, ñi nga xam ne ñoom ñu trafiqué xale yi waaw mun na gis état Sénégal mun na teg ay marin n'est-ce pas ci bépp mètre ci frontière ci ci géeju Sénégal waa xale yi dinañ fi jóge dem Mauritanie wala ñu dem yeneen réew embarqué foofu dem seen yoon waaw ñëpp xam nañu ne Nouadhibou point de départ la xale yu bëri dañu fi jóge dem Nouadhibou jóge Nouadhibou dugg gaal dem seen yoon wala ñu dem ba Maroc mhm. n'est-ce pas Maroc amul visa pour dem Maroc mhm. suñu fa eggee n'est-ce pas Tanger n'est-ce pas ñu daal di euh, euh, daal dugg gaal n'est-ce pas euh, dem Europe kon lenn rek moo mën a xale yi mooy jox leen fii jox leen opportunité fii ci biir réew mi te loolu moo manqué moo manqué moo tax ñu ngi woo état pour que ñu évaluer lépp bépp loo xam ne programme la wala politique la boo xam ne dañ ko tëral pour jox xale yi n'est-ce pas liggéey il faut ñu évaluer politique yooyu ñaata milliards lañu def ci Prodac ak Prodac lan la jur ci njëriñ n'est-ce pas pour askanu Sénégal la bi bii doon wax lan moo njëriñu DER lan la jur et FNPJ yooyu yëpp nañ ko évaluer ñu def nag audit bu indépendant audit bu indépendant ma cabinet ay cabinet privé ñoo koy def indépendant yoo xam ñoo koy def ñu def rapport i nekk ay rapport public waaw loolu la ñu xaar parce que encore une fois alal Sénégal yi bu bëri lañ fa dugal te impact wu projet yooyu ci immigration clandestine euh, euh, gisuñu ko gisuñu ko en tout cas événement yi nga xam ne moom moo xew temps yi dafa wane ni que projet yooyu amuñu benn impact immigration clandestine. Hmm. am na tam ñu jàpp ne luubal yu bari yi euh, am na ci effet ndax ñuy sàcc say ma mënoo ci dara bu yàggee nga nga nga nga gedd est-ce que jàpp nga ne loolu mën naa waral xale yi di dem. waaw luubal moom jàngoro bu rëy lañ ci état. ci réew sax jàngoro bu rëy la ndax duuba lan la la lan la signifié mooy lépp loo xam ne waroon na dem ci askan wi n'est-ce pas ay nit aakimu ko def ko seen affaire bopp ah, loolu mooy luubal ah, alal boobu nag ñu aakimoo mooy alal ba waroon a dem ci mbirum euh, éducation dem ci mbirum pañ mi dem ci mbirum ay projet pour ñu xale yi liggéey moo tax euh, luubal ak ngeer ay jàngoro yu rëy la ci société ak état dañ ko war a xeex te pour xeex ko foog mu am volonté politique ndax su dee volonté politique amul dinañu topp ñi nga xam ne ñoom ñoo dénoncé ngeer ak luubal waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ngeer ak ak di luubal ñooñu dafay mel ni état dafa leen di protéger kon ci genre système boobu la ñu nekk en ce moment moo tax encore une fois il faut que mu am volonté politique foog état ci boppam farlu. topp ñi nga xam ne ñoom ñooy luubal topp ñi nga xam ne ñoom ñooy nger pour que phénomène boobu ñu mun ko éradiquer ci biir réew parce que encore une fois jàngoro bu la cancer la ci dëkk mm. dañ ko war a éradiquer ni mu gën a gaawee. Mm. alors euh, état jamono jooja itam ne dal moo tax daal lépp lu opposition bi sumb ko manifestation mu aaye ka euh, ndax euh, jàpp nga ne loola xel mën na koo nangu fi ñu toll nii. loolu xel mënu ko nangu ndax xam nga ne lii andi trouble à l'ordre public ñàkk daal ci Sénégal li ko andi mooy xaaj ñi seen droit xaaj ñi seen sañ-sañ bañ ñu dox ñaxtu xam nga dox ñaxtu ci société démocratique. dafa di liberté boo xam ne état daf ko war a sàmm ndax dox ñaxtu moom moo mun a tax état xam lan lan lan lan la askanam xalaat ci politique yi nga xam ne moom la tëral lan moo naxari askan wi lan la ñuy ñàkk lan la ñu amul nest pas dox ñaxtu moo ko mun a tax waaye état soo ragalee dox ñaxtu di réprimer dox ñaxtu état boobu ci ay jafe-jafe rek lay dem ci ay trouble rek lay dem ndax soo seetee bu baax manifestation yu bëri yi nga xam ne n'est-ce pas dañu dégénérer ci biir mais c'est parce que état dafa leen interdire. moo tax ñu dégénéré hmm. soo gisee nit ñi tamit léegi dañuy jóg rek spontanément rek daal di commencé manifester di yàq c'est parce que dañuy naan soxlawul dem ñaan autorisation préfet parce que soo fa demee di ñaan autorisation mais dañu la ko jox soo defee recours tamit cour suprême doo ci am benn benn benn jéego côté cour suprême loolu moo tax tey ñu bëri dañuy organiser ay manifestations spontanées hmm. kon trouble à l'ordre public principal responsable mooy état Sénégal moom mooy responsable du trouble à l'ordre public interdiction de manifestation ce sont des interdictions illégales dafa war a jeex surtout en période préélectorale mënoo na damay organiser élection ci juróom benn weer ba pare nga ne nit ñi doo ndox dox ñaawtu doole leen exprimer ku wax rek nga jàpp nga tëj je crois loolu tamit dafa dëppul ak démocratie noo jàngatee taxawaayu procureur ci mbiram Aliou Sané ak Cheikh Bara Ndiaye mu woneeti ne ku am doole la ci procédure judiciaire yi waaye ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax baax ñëpp xam nañ ne procureur n'est-ce pas kilifa mooy ministre la justice Ismaïla Madior Fall nest ak Macky Sall mooy seen kilifa te procédure yi nga xam ne acharnement judiciaire bi nga xam ne mu ngi koy exercer tey contre Aliou Sané contre El Malick Sarr ñeneen ak ñeneen kenn mënuñ ci bañ a gis loxo Ismaïla Madior Fall ak loxo Macky Sall ñoom ñoo nekk ci gannaaw ci procureur waaw loolu bett ñu sax parce que procureur dafa nekk seen kilifte waaye li ñu bett mooy ay juge yi nga xam ne se juge assis lu mel ni chambre d'accusation di leen topp ci seen volonté wu persécuter ay loolu vraiment daf ñu bett moo tax vraiment euh, décision euh, maanaam bu chambre d'accusation bi mais vraiment ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñaawlu vraiment encouragé ni avocat bi pour mu def appel dëmb rek n'est-ce pas pratiquement képp kuy kuréel fii ci biir Sénégal euh, ci société civile wax ma rek droit de l'homme ah ñun yëpp ci plateforme jàmm réew mi dañu génn communiqué pour ñaawlu maanaam acharnement bi nga xam ne moom la ñu bëgg def contre Aliou Sané di wax vraiment max Macky Sall pour que mu arrêté acharnement bi nu mu gën a gaawee tey nee na dootul bokk ci élection bi ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que respecté na constitution réew mi léegi na fi andi daal na fi andi jàmm ah su dee dafa bugg a génn ci biir réew mi euh, bay présidence te ñu naw ko ci àdduna ak ci ci biir réew mi il faut que mu installé fi jàmm fexe ba jàmm law ci biir réew mi ñu mën a ci ay élection yoo xam ne élection yu jaar yoon lay doon te képp ku ci bugg bokk rek nga bokk ci mm. et mu bañ a euh, n'est-ce pas wut ay pexe pour éliminer que ce soit de ces élections là mm-hmm. loolu mooy mun a tax ba jàmm am ci biir réew mi kon jàmm mu ngi ci loxo moom ci Macky Sall hmm. ah il faut vraiment képp koo xam ne am ga kaddu ci biir réew mi bu kilifa diine yi n'est-ce pas ah, surtout encore une fois maa ngi lance appel euh, suñu suñu bàyyi Serigne Mountakha Mbacké ak ñeneen kilifa diine yi pour que ñu wax ak Macky Sall pour que évidemment mu ànd daal ci biir réew mi nu mu gën a gaawee mu bañ a gàllankoor candidature kenn ci biir réew mi ci élection yi di ñëw te vraiment encore une fois ñi mu ñi nga ñoom nekk ci biir kaso te dañ leen tëj uniquement pour des motifs politiques. bu mm. mu leen a bàyyi ñoom yëpp ñu ngi seen kër. jërëjëf Seydi Gassama ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal ci matinalu réew mi FM fàttali ni yow yaay directeur exécutif bu Amnesty International fii ci Sénégal. jërëjëf